ñaari yoon dañu am session extraordinaire yoo xam ne day génn Abuja kon bu ñu tànnee ne Ndakaaru lañ koy defee ñu war cee am taxawaay ndax benn la bu ñu ko tóolantee feneen lay doon Moustapha Cissé Lo jiite loolu kon assemblée nationale war na ci am taxawaay ci ay kilifaam ba ñu xam ne yëg nañu bii jotaay ci biir réew mi ci Ndakaaru rawatina bi nga xamee ñoom lu ñu fas yéene waxtaanee ginnaaw séminaire bi ñu génn. ndax ku wax séminaire war ngaa xam li mu ëmb yëpp ne du ay waxtaan du ay werante mais da am ay jumtuwaay ay jumtuwaay yoo xam ne li ngay waxtaanee lu wér lay doon ndax xam nañu ne ñuy wax waxu mone du waxu caaxaan ndax lii nga xam ne moom lañu ñu namm ba wax na ñoom seen jotaayu assemble bu bees bii dañ ciy wax waxu monnaie unique mone unique mooy fukki dëkk yeeg juróom. yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci CEDEAO ñëpp am benn xaalis boo xam ne moom lañuy bokk foo dem ci fukki dëkk yu juróom mën cee jënd soxlawul wecceeku soo nekkee ndakaaru di ko yónnee Nigéria doo fay ay frais loolu pour mu am foog ñu seet dëkk bu nekk wala ay dëkk yu nekk ñu ñu séqaloon ci seen weccit wu jëkk kon xam nga loolu yëfu caaxaan kon ay député bu ñëwee fii ci Sénégal di ko waxtaane foog ñu am taxawaay seen wet wax leen ne lii ngeen xam ne yéen a ngi koy xool di ko gëstu assemblée bu Sénégal mu leen ci jàppale di leen ci li te wax naa ci tubaab ne seen kuréel bi ñu ngi koy wet seen kuréel bi ñu ngi koy gëm seen kumpe ñu ngi am yaakaar ci moom ndax seen président bi dafa am boobu taxawaay